Tiwaawan woote naa ana ku bëgg Seydil Hadj Malick ay walla nu ñaani paas gaal ga teer naa ay Tiwaawan woote naa guddi bi Yonent bi tey boo demee Tiwaawan bul fa xuloo boo demee Tiwaawan bul fa xuloo bul fa xee bul fa ŋaayoo bul fa xiiroo maam as moo te fii yee guddi bi yónneen bee boo demee Tiwaawan bul fa xeex bul fa xuloo fa ngaayoo mam as moo woote fii guddib yónneen bee boo demee Tiwaawan fa xeex bul fa xuloo fa ngaayoo ndax maam aas moo te fii guddi bi yónneen ba ana ku yaakaar Seydil Xaaji Malick Tiwaawan dëkk leer la aa safane Tiwaawan dëkk ci waawoon dëkk leer a safane ana soppay sëriñ Babacar Si ku fi jaxle booya ku fi jaxle booya boo dem ci waawan ku fi jaxle booya boo dem ci waawan ana soppay Sëriñ Babacar fi jaxle booya boo dem ti waawan ñaan sa aajo say maqaama lu makka taana mbay kamaala lu madina nga mbay kamaala borom bone cey borom bone kaare bi cey borom bone kaare bi borom sakara yàlla borom manto be kooku mooy Sëriñ Babacar Si ahlu makka tanga naan bay kamaal ahlu madina nga naan bay kamaal cey borom bone kaare bi cey borom bone kaare bi hey borom bonakaare be borom sakara yàlla be borom manto be kooku mooy sëriñ Babacar Si ahlu makkataana na bayta la ahlu madina na bayta maan la léegi la jamono neex léegi la jamono neex bu njëkk boo bindee leetar ne xalifa ilaa tiwaawan nañ koy yóbbu léegi la jamono neex ba kenn ku ne di woote ab xalifa bu njëkk boo bindoon leetar def si xalifa ilaa tiwaawan si sëriñ Babacar si ana soppay sëriñ Babacar si ana soppay sëriñ Babacar si sëriñ Babacar Sy am na fulloo am na jom am na listixaama am na maxaama am na wilaaya am na diraaya ana soppay sëriñ Babacar Sy bay ali soppay sëriñ Babacar am na maxaama am na wilaaya am na istixaama am na diraaya am na maqaama ami mbay